Euh, euh, daf ko yombal dafa wommat wutuwaayu araam yi def ko ci téléphone yi nga xam ne léegi sa jiba sa jiba mooy sa wéef walla sa orange sa jiba yow boo dee boo dee carte ci jiba jooju ngay jël ñeent fukki dërëm wala nga jël loo ci jël yónnee ko ña yor wàll carte ga yaa ngi yéen a ngi toog de nga defe ne day bind message fekk day carte bu gañee lam gañee dañ ko koy delloowaat ci jibo elect jibaam ca kenn du yëg bari na ci ay ndaw ci dëkk bi fu mu nekk ne ci seen téléphone yi ci carte rek lañ nekk te loolu ah ci loolu rawatina jamono ji ñu toll nga xam ne coupe du monde bi ci lañ nekk ñu bari dañuy kart ci équipe yi kan mooy gagné ak kan moo dul gagné di ci def seen xaalis ca loolu neexut a xam dangay xam jamono ji fi mu rek door koo xam waaye sa njabootu bopp da gis xale yoo xamante ni di di sol ay yére yoo xam doo xam fu ñu ko jëlee lu ci lu ci ëpp du mën a ñëpp de waaye bari na ci yoo xam ne ci carte googu lay doon ndax amuñ benn liggéey bu leen di may loolu te seen njaboot joxuñ leen ko yooyu war nañoo bàyyi xel ci ne <clears throat> loolu lu ñàkk solo la ca war nañ koy war nañ ci gën a yitte woo bëgg àddina nag moom bëgg àddina mooy nga def ko ci sa xol mooy xol bi bu ci àdduna nekk mooy bëgg nga ko donte kaw gi ak toroxlu lay wane kaw gi bu bu bu taaroo rafet ca xol bi àdduna nekku ci tamit bëggoo àdduna kon buñ ko natt ci ay yére ak li feeñ waaye mbiru xol la mbiru xol bari na ñoo xam ne ci toroxlu ci sol yére yu yu woyof ci la seenu bëgg àdduna nekk ndax dañuy bëgg nit ñi naan kii de moom nangam kii de moom nangam fekk te bëgg àdduna lañ feese parce que mbir mi mbiru xol la ngir am nit ñi dañ koy jéem a jaar ci woyofal seen i yére fekk àdduna yi neen moo nekk ci seen xol nga gis ñeneen ñoo xam ne boo leen gisee rek dangay naan àdduna juy dox la te fekk dara safu leen ci ci seen xol sant yàlla moo tax ñu koy ñu koy def kon bëgg àdduna dafa xaw a sew ci mbiru xol la waaye xol bu mu nekk moom xol boobu moom teraanga du fa nekk ak ñàkk la ko yàlla taqale ndax donte am amu àdduna bi bari na waaye da koy jural alkande ndax lu sàmm alal ja ca lay nekk du tabe day nay ca day bëgg alal ji di yokk ca nu mu ko axira loolu lay yonent bi di wax ni ku bëgg àdduna ku nekk danaa ko taqaleek ak ñàkk noonu lañ ko war a déggee kon ku gis ku bëgg àdduna lool te muy dëgg bu yoree alal yi alal jooju alkande la koy yóbbe sëriñ Tuubaa nag moom santaane ñu bàyyi àddina sànni ko ndax àdduna mooy tool bi fi la bayee fi la ñuy buñ ko góobee alaaxira lañ koy jëfandikoo moo tax moom sëntu kenn mu bàyyi àdduna waaye daf leen a sant ñu bañ a def àdduna ci seen xol moo tax moom mu wax ni àdduna daal la ko ca amaloon njariñ mooy la koy jàppandalal ak euh, àjjanaam axastu min dunyaahu zaadi lii lil jinaan wan qaada lil hawa safal janaan àdduna li ma ciy jàppandal ma yóbbal bi may tukkee jëm àllaaxira loolu rek moo ci moom moom laa soxla ci àdduna moo taxit gis nga ko yim fi defoon yépp boo ko xoolee mooy ay jaamu yàlla lay doon taxawal ay jumaa yar ay nit jàngal leen santaane ñu sant ay dëkk yooyu yépp ay jëf yu baax la yoo xamante ni day dugg ci yóbbalu aljana bi waaye tabaxu fi woon ay kër dajale fi woon ay oto ak i naaru góor yooyu yépp defu ko woon ndax moom lépp lu doon jëfandikoo daf koy jàppe jumtukaay bu koy yombalal tukki bi axastu min duniyaahu zaadi lil naan kon bi bu nekk foofu la war a nekk alal nag wut gi coono la sàmm gi coono la saa bu nekkee cib xol wut gi coono la sàmm gi boo ko amee ba noppi sàmm gi coono la loo tax moom léppam fitna la kon ndaw ñi war nañoo gën a bàyyi xel yooyu xam ni amut ak mujj teraangay àdduna nag kenn du ko dendaleeg teraangay alaaxira ku xamut rek moo koy xalaat ibnu abbas ci saxaaba yi la woon dafa wax ni laysa fil jannati shay'un yushbihu ma fi dunya illa al asma àdduna ak alaaxira bokkalewuñ dara lu dut ay tur dex am na ci àdduna dex am na alaaxira ay soxna am nañ àdduna ay soxna am na alaaxira teraanga am na àdduna teraanga am na alaaxira garab am na àdduna garab am na alaaxira waxtu am na àdduna waxtu am na alaaxira waaye nee na loolu lépp ay tur rek ci lañ daje daray àdduna kenn du ko natt ci daray alaaxira waxtu fii ci àdduna dafa am fu tàmbalee am fum mu yem ca bu dee alaaxira tàmbalee tut fenn yëmatut fenn kon kenn du ko dendale dexi àdduna ndox lañ ca xam ca boo demee dexi àllaaxira ni ko yàlla nettalee ay dexu lem dexu meew ak yeneen sàngara am na àlla àdduna am na àllaaxira ca bokkuñ kon bu kenn dendalee lenn àdduna ci lenn àllaaxira loolu la Ibnu Abbas wax Sëriñ Tuubaa nag moom ci gàttal daf ne rek mooy te ndiku leen jënde àdduna seen àllaaxira ku ko def mi ngi mel na ngi amuk leer ba noppi jaay ko jënde ko ak lëndam rëccu rek bu juree doom rëccu rekk lay doon laa tashtari dunya bi uxra yaa man baa bit biddu jaa fa sa yandam kon ndaw ñi nañ gën a bàyyi xel wàllu googu gën a sóobu ci toroxlu ci doylu ci wakkiirlu ci yàlla ca xam ni teraangay àdduna mu ngi ci topp yàlla dëgg dëgg teraanga ku suur àdduna danga nga xiif àllaaxira loolu nañ ko jàpp muy ab yóbbal ñetteel bi te xam naa ci lay mujje ndax bañ eh, nit ñi ci jotaay bi lu yàgg mooy taalibe ak taalibeem sëriñ Modou Khare ak taalibeem nekk gi mu nekk taalibe sëriñ Touba nangu ko dund ko saddaquhu fi mahabbati cheikh cheikh al Khadim ku ko xam ñi ko xam ñëpp ñaar kenn mënu ci kenn wérantewu ci ci ñu ko xam ci ni moom bi Serigne Touba bu dëggal la woon ci loolu màndarga yi bari na lool dafa jeexoon tàkk ci bëgg sëriñ Touba bëgg gi dafa nekk màndargay murid saadex loolu sëriñ Touba moo ko waxal boppam bëgg sa kilifa bëgg sa sëriñ dafa nekk màndarga ci ak dëggal sifaatu euh, euh, sifaatu saadiqil muridi bixtisaar arbaatun nazamtuha xawfa tiraar